Heavyweight.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 Fatou Kiné Njaay mii nag li ko dal metti na Fatou Kiné Njaay ab étudiante la ca Maroc gi mu nekkoon lañu ko tegee loxo ci wàllum drogue pëtëlaw ba fi mu ne nag mi ngi ci loxo yoon ndax nee nañu ab samba booy buy wuyoo ci turu Masuxa Mbeng moo ko yóbbante woon bi muy ñaw Sénégal ndekete yoo ko bi mu ko yóbbante daf ci defoon drogue 400 gram ci drogue bi ñuy wooyee assis askay defoon ko ci ab waatu dàll bu bokkoon ci koli bi hmm, xoolal ma lii rek hmm, dana tax ba kenn dootul woolu kenn masu xombe nga moom ko yóbbante woon naa mujj nañ ko teg loxo ca Maroc ca fa ñu naan Agadir waaw góore waay M Sabali ak M John mi waroon a réceptionné drogue bi fii ci Sénégal ñoom it teg nañ leen loxo ci diggante sali ak Wokam waaw góore waay ba tey ci dil boobu tamit am na beneen étudiant bu ci daanu ñu tegee ko loxo ca Wokam étudiant boobu ci daanu nag M Sabali ak Masuxa Mbeng ñu ngi ko doon dakkantele maire beñe nga ni ma ne mer beñe moomu bi muy daanu fekkee nañu ko ak téeméeri gram ci drogue boobu ñuy wooye hashish eskay kaandaw moomu nag te ñu ko doon wooyee maire beñe nee ñu moom ak beneen complice am buy wuyoo ci em njaay ñoom la ñu chargé woon ñuy dugal drogue bi ci marché sénégalais bi pëtë law allahu akbar tey nee ñu maire beñe moomu colis drogue yi balaa ñu doon ñëw sénégal dañ ko doon envoyé photo colis yëpp mu xàmmee leen <laughs> waaye lii day ngandi réseau la hmm, ana jigéen ak bokk ci ab trafic de drogue waxatuma ak ab étudiante réseau jaaykatu drogue boobu na gp yu bari nekk nañu seeni ay victime Fatou Kiné Njaay mii da cee mujj feeñ rek yu ni mel nag day tax ba réew mi kenn dootul wóolu kenn <laughs> waaw waaw ne kenn dootul yóbbante wóolu kenn la wax moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax a jàllo mii nag li ñu ko tuumal doy na war ndax dañ koo teg loxo tuumaal ko ne ci palaasam bi mu doon jaayee brochette brochette yi da ci doon yoori yamba potalaw 24 mars bi weesu nag lañu ko doon atte ci tribunal grande instance bu ndakaaru yoon di ko toppee ci wàllum njaayum drogue ak ñu fekkee ko ak drogue <laughs> ay dugg nga ni ruba a jàllo nag mu ngi am 25 ans te nee nañu bokk na ci li tax ba police teg ko loxo dafa am ku ko yoole ba police def descente ci place bi muy jaayee brochette ci béréb bi ñu fekk fa 18 kornetu yamba hëpp low yu ñu tas ci ay saag yu ñuul ñu laqoon ko ci suufu taabal bi muy jaayee brochette ci kanamu siis bi nag ah jàllo weddina tuuma yi ñu teg ci kawam ba tëdd ci naaj bi une ndax nee na moom daal jaay brochette rek la xam place bi muy liggéeyee tamit dafa bari ñu fay fréquenté moo tax bi yëf yi di xew bi fa police defee descente ña doon fréquenté ci lañu ñu gisee police yi dal daw comme moom nag mënul daw ndax mooy borom place bi ci la taxawee ci la ko fa police yi fekkee daa koy brutaliser ba noppi teg ko loxo yóbbu ko ëskay ba tey ajàllooy wax de ci kanamu juge bi juge bi laajaat ko ne ko saagu drogue bi ñu fekk ci sa place na ku ko moom mu lànkati ba tëdd ci naaj bi ne moomu ko teg ci teyit ne saagu drogue boobu kenn fekk ko ci suufu taabalam bi muy jaayee bi police yi ñëwee dal di fay def embuscade ña fa nekkoon ci la ñu dawee mu njort nag ne ñooñu kenn ko fa sànni waaye mbir mi lëj na nag lëj na de a jàllo nag bi mu nekkee tribunal moom cunduma fa nekkoon ndax amul woon avocat tey mim réew juge bi laajaat ko ne ko enquêteurs yi nee nañu da nga doon jaay drogue te ci biir sandwich si nga doon jaay nga ko doon dugal ah jàllo weddeeti ko ba tëdd ci naaj bi li ñuy wax loolu dañu ko bëgg a tuumaal waaye defu ko ba nag li mu mujjee def mooy daan ko ñaari weeru kaso yu muy tëdd ay waay ay waay moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw korona la wax gi mari saña na li mu dund ca kaso kam manuel ba doy na war gi nee na kaso bi chambre yi plus de cent cinquante personnes ñoo ci nekk ñu paqueté leen teg ci ne kaso boobu dañu lay futti taati neen dungu ni la sa ay waay upp naa def waay toroxal la ba nga ner tot amul xale amul mak kii teg na ci biir kaso kat bi li ñu fay dundee yépp dañu ko yokk ne benn nen pour omelette ak cinquante franc pain ñu ko fay jaayee quatre cent franc ay waay ëpp na ëpp na benn minute téléphone ñaar fukki dërëm ne bi mu gisee ne foofu li ñu fay moo raw puuf li esclave yi doon dund ci la bindee ab lettre directrice bi di ko xamal ni ko lii du yoon ci lañ ko jëlee isole yóbbu ko ci am néeg boo xam ni xat ba maaro day taal Hmm, ma ne kon nag suñu prison yi noonu lañ mel de te it yàgg nañ cee wax réew mi moom prison yi moo raw fuuf la njaam ñi doon dund laa la wax waaye nag li ñu war a utal kaso dëgg-dëgg ci réew mi mooy làmmiñ réew mi bu ñu wattuwul làmmeñ dina ko taal ay waay fexe leen ba Sénégal gi nekkoon benn démb ñu delloo siwaat ko Sénégal benn bopp la te kenn mënu koo xar ñaar xaayaan nag ku dégg séeréer mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz